نصر من الله وفتح قريب وبسر المؤمنين برم نصر الله دين بالبسر ما مغدي أتاه لدين الله أركانا يسر جوي توبا يسر جوي توبا وهمني وخني أسأل وراء والتكب لي سما إسكانا لك سما والأراء دي والهواء بلا مسارك لير المنزل قبانا أجب وسلي بتدليم على سندي وإني أهيس بك وسريتها من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمم ورحمة الله وبركاته عند عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته حال عليكم ورحمة الله وبركاته حال عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. di wax jërëjëf Serigne Touba Khadim Rasoul di yeesal sun njébbal ci moom te fop suñu tànk teg ko ci roy maam Cheikh Fall Mouride di sant yàlla bu wér di leen sant ci seen teewaay yi te di ko bége doxin yu rafet yi doxin yi ak pastéef yi nga xam ni ku ne ci nun mhm. ba fii ñu toll nii di wax ñi toog nii mhm. suñ premier jour ñu daje mhm. jóge magal Touba ma ñaanoon leen nit na ñëpp dugg te bàyyi ma dawal ña adhéré woon booba ba fi nu toll ñii gis naa ci ñoo xam ne taxawaguñu sees ba ñu occupé woon muy seen place fukki weer ak ñaar yu nekk traversé nañ ko ñoo ñoom ñoo ànd ba mu ngi bëgg a doon ay at waaye at mënuñ mënu jàll muñ dëgg ma la ko man ñu fa woon benn bat buñuy wax wax ma xal bi ni ma koy rek moy xol bu toj ak nangu xol bu nangu bat bobu seigne touba di wax implanté ko ci suñu biir ñun lola jur fim ne waxuma xitmatul khadim bi biñ koy sos dandi sa yuñ dajé bu amé ñaar fukki junni baax fi ne ñu ñaar ajjuma junne sëñ ji bi romb nañ ko ñaari yoon defe naa tey rek ñu ngi terminé ci trois 300 kon ñetti ajjuma lañ boole chaque ajjuma ñu def noonu sëñ Moustapha jëm jëm juróom fukki ajjuma ak ñaar chaque vendredi mbooloom sëñ Tuubaa mii daje liggéeyal sëñ Tuubaa lu jëm ci bisam ba lu toll noonu ba màggal jotee leen koy génn liggéeyal ko sëriñ bi ci dëkkam bi ak ganam ñi loolu njàmbaar la waaye damay wax ni ndimbalul suñ boroom yenn saa yi mu waaxu ba fekk ab jaam fi mu nekk jël ko yóbbaale ko te loolu rek moo ñu dal ndax mën nañoo mënoon nañoo yëngu ci leneen lu dul lii loolu lay rafet lu di len sante di len ñaanal yalla man dama bok ci nga xamni ay reference dama ko soxla kuma japp ni yaa man dama lay teg bet parce que day tax dox xam nga ñew daayira su eggé ci jël auto def ci gasoil bayyi sa yitté bayyi sa njabot fop sa temps bloqué daw ay kilomètre ngeen féké jiko man référence nga ci man soxna yi jógee jogé Dakar ci so dañ ma yone wokaa rek ni ma aji mo may def waye sama lisanu al ndax ma wax ni na ñew ngir sama njabotuma jëk soñ xale yu ndaw yi ñoo ko miin ci daayira yi ajjuma Cees ba ku xëy ni ko ah, kañ ngay dem Cees tey la mu xam ne moomatul boppam kii Baye Cheikh di wax ci télé bi lañu gisee soxna si bàyyi ko Saint-Louis heure bi démb lay doog si si Cees ñu jàpp dafa ñëw ngir aajo jo muy sàkku mu dama bëgg a fekk si li ngeen di def ndax dama koy seetaale bëgg cee bokk wolof nag daa wax ni ku fu dee ci marché yaa tàgge sa bopp kon nun noo tàgge suñu bopp ndax këf kii as yor ñu bari ñu dégg ñuy wax ba wax ji fees seen nopp ñu bëgg cee teg seen bët moo tax lépp lu nu lu rikkil ñun sañatuñ ko dox rek lañ mën a def nañ gën a takkuwaat te gën a dox te kenn ku nekk ci ñun jàpp ni bu doon yow képp yow yaa koy doxal yow baat bii nga wax léegi lu am solo la li ngeen def kum ñurut aw yow boo ko deelee woon sax doona gis wax na dëgg dëgg la borom bi tabaraka wa taala mi manal ñëpp lépp man tek naa sa bët ci texte bu mu wax ni ñii sama yoon niwul ci moom ci ñoom te moo leen bind loolu gis naa ko ci téere bu mag bi daal xoraan maa ci gis man yàlla maw maay mawlaa la sina amunu ñi nangu li ma ne tamu tamu ñor leen nangul naa leen ni may seen patron gis naa fu ko yàlla waxee waaye te ñëpp maa leen bind am na ñoo xam ne génn naa ñoom seen dara du sama dara waana al kaafirina laa mawlaa yàlla wax na ko bi nee na am na ñoo xam ne si sama dara du seen dara seen dara du dara xam ñooñu mooy ñan ñoo xam ne yàlla dugg ñu génn te ñoom lu dugg génn ca yàlla yàlla leen sama dara seen dara waana al kaafirina laa mawlaa lahum mag mu toll ni suñ borom nag suñu nee jël position bu tëddee noonu jaamam du aay ci moom ku mu foo maanaam nu mu lay defet mu maanu sa mbir loolu dëgg la xam nga ngor baat la bu ñuy tudd waaye du dara lu gën a gorente loolu de loolu keppay gor waaye waxtu way ànd sa nawle mu di la ji ngor di la ji ngor di la ji ngor te ji ma ko fay mukk sëñ bi kooku kooku kooku kooku kenn hmm? kenn xamul noo koy tudde moo tax ñu nekk ci course bi tey daw rang bi fii ngeen ne yal na leen taxaw mbir nag boo demee ba xoolal tey asam ñi dugg si tey ci géew bi fay fekk si la fii ba Amérique fii ba fii ba états-unis d'Amérique am nga fa membre yu musta toog fii yaa bind seen tur léegi ñoom sëñ Falis si ni sasu sasu année bi lay matal soxnaam nu mu tuddati soxna Ndatay Njaay soxna suñu Faali la yónnee na addiyam léegi ne sasu atam lay matal mooy li ma doon jox fii ñu toog France soxna Ndey Diouf yone na addiyaam léegi bind nga ko wax naa la suñ mbokki soxna yi dëkk Touba ñoom ñaar ñooy nga doon bind soxna Joor ak soxna Ware mosuñoo ñëw nasru tey lañu inscrire ngir ànd ak yéen ci liggéey bi seen addiya yi jot ngeen ko waxumaa nag ñi nga xam ni naka jekk ñu ngi jëf te nekk ci régions yi ñooñu laa wax man su ma leen dee xool foog ma waaxu xam nga li waa ji wax ku ci sàggan dem bala lii mooy ku ci sàggan dem bala xam naa xam naa xam naa du ñàkk fay xam mosoon naa mosoon naa dégg daaj boobu amuloon maam ci bokkoon loolu mooy li fi ne jërëjëf soxna soxna abi Selwi seen ñun di rek la ñuy dund moom famille mii yëpp ay jullit lañu gaa waaye duñu woon murit nag xaw ma soxna paaye la këf xaw ma waaye sëñ bee mel noonu xam nga dama mos dégg sëñ jibi mii bind bu mu doon jàngalee bu yàgg mu ni tool sëñ bee fi ne ak mbooyu sëñ bi waye sëñ bi saa yu bëggee yok tool bi ci mboy gi lay sak yeen yi nek ci mboy gi am ngeen problème <laughs> borom tool saa yu bëggee yokk tool day dem ga sak hein ma wara saa yoo xëyee gis ko ko bayiko ci mboy ga ñew ci tool bi waye toolam bi ku ci dugg da nga xamni ne singa deg bi ma seen jàng dégg ko ci tuxfatul mutadarihin xasida ko am solo ngoog nag daanaa ko jang ci jamono yi ma yafu sagut ma defé ñen fukk yasi rek ben yang ko juroom ñaar yoon do ko waaw ko def sekere nga ci bo xam bo boo doon yu xone ni wa bi jahi jibril astajib sohali wa balakhani mablakh rijal sëñ bi sax dañ koy bind ba si fi ci àll ne ndax day bind ba si fi wax na ni jibril feñu ko mo ramu tuddu tudd tur wa ayi ko mom tax mu ni ko ma nga ñaan yalla ci sabarke ak mission bi ngay doxi ne Jibril laj ko lu bëgg mu ni ko fa goor yalla na nek ci seen kaw wa bi jibril ma nga ñaan yalla mi nga moy maye ci barke ndawum li mab la mu jotale ma mab la ma mu jotale mab la xari jàll góor ña sëñ bind ci biir xasida gi ngay dégg muy wax ni képp ko aju ci man mucc nga tuhfatul mutadarihin maanaam boo bëggee ñu ubbi la ubbi bu gaaw nga am fàttu sa diggante sa borom moom it xasida gi mu doon jàng moo ci ay lo nilar nilar nilar, lo rir rir rir rir lo nyak nyak xam boo ko saxoolee nga bok ci gay mako wax dé mu ko ñaan bi mi ñaan yalla jéggal way juri bam noppé la wax ni señ borom ma ngi lay ñaan nga may ma képp ko ci man ka ci man ngal kan defal ko saxaadatu dari ni cha feba tay Islam muy tur yàlla yam bolé tuddu ko tuddu na fa lati fi ñaan ci tuddu fa xawi yu ñaan ci tuddu fa xarib ñaan ci ba yàgg mu ni ma nga ñaan suñ borom waxuma la man waye kep ko xane yaakar na sax nang ko def mu bok ci gor yalla yi ke man la mm-hmm. yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma waaye maa ngi lay ñaan ku tudd saw tur sama tur di ca ñaan nga may ko wali la si daxaani wali yajud wali la bi nam ni fi mhm. la si daxaani yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma waaye maa ngi ñaan ko tudd saw tur ñaan ci may ko ci barke xaside gii di tufatul mutadaarihin naa am ngërëmul yàlla ku ku ma ku ànd ak man na am ngërëmul yàlla mhm. ku koy jàng na am sécurité na am ngërëmul yàlla te na am ay xéewal Mm-hmm. ajulatil azwa'i wal ilaya jërëjëf sant yàlla rek la ñuy def doxin wu wu rafet wii te ngeen di dox bu kenn arrêté damay soññe rek ñépp ñi bokk ci mbooloo mi nañ farlu def ni dem ko bala ngaa départ na nga ko woo te boo noppee na nga yëglu ndax na ko bëgg a yóbbu. moo tax ñuy def soññee bi ñu def ci ñëpp buñ demee ba ñi nekk orop nekk Amérique nekk feneen di def nii ñuy def yéen ñi ci biir dëkk yi tax ñu wax. Mm-hmm. maa ngi leen di soññ ci bisu ajjuma bi la ko dalee ci julli jumaa ga waaye waaye yéen taalibe yi suñu asan yéen xarit yéen wala yi fonk leen jubaay suñu borom ci na ngeen ko fonk borom bee wax ni naa leen wax ni isa nuudiya li salaati min yawmi juma yéen ñëpp fasaw ila sikrillah ba sheikh yalla neena su ngeen pap jang dar ay noppam tuddu allahu akbar sun borom ji ca sawal ja ca ener edem fas xaw bàyyi leen li ngeen def te ngeen dox dem ca jàkka ji diglu ji yàlla nee na wasarul bayaa kuy jaay bàyyil njaay mi kuy menuisier bàyyil menuisier bi kuy tabax bàyyil bâtiment bi kuy leet bàyyil la ngay def lu waaye doon def teg ko ci suuf da nga dem wuy ji sa borom gis nga def loolu yàlla wax salikum xayrun lakum nee na yàlla nee na moo gën ci yéen loo jënde loolu loola jarul li yàlla wax loo bàyyi jël li yàlla wax moo gën la nga def wasarul bayaa saalikum xayrun lakkum la yàlla wax moo gën ci yéen xanaa yëgoon ni jumaa dina jàpp nit waaw ni jàppaa nga di jàppee leen nga xam ne bu la téyee doo fa jóg jumaa dana ko def ab jaam xam nga loo yeew ne du fa jóge oto sax boo ko freiné ba noppi dëgg frein amee ba noppi fay ko yóbbaale caabi ja koo ko bëgg a yóbbu di nga nara a di nga xaw a sonn jumaa da koy def nit fi ne dëkk boo ne te dëkk ci dëkk bi te jige jige ji jumaa ji lu mat un kilomètre su neuf heures demi jotee jëm dix heures sañatoo tukki sañatoo ko ndegam ëpp jullit nga laa wax te bu bu noddi nga digg rajo yi waxtu woo jotee jumaa dala naan bul dépp daal seeti baal ma noppi ci yow waaye nag boo mënta respecté loolu xanaa ajjuma yëpp yenn saa yi am na ci ajjuma yëpp saa ajjuma boo nga di ko jox ci jumaa ji boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam de nee woon na yéen sama xeet wi laa wax yéen sama xeet wi ngeen gëm ni yàllaa leen bind te moo leen di rey ëllëg te ku ne li am moo la koy jox ñu ne waaw mu ni yonent bi ne man missionnaire laa borom bi neena ku fat ñetti aljuma yu tegaloo to tay ko dañ nga ci lislaam ñetti aljuma ku ko tegale ne manam yo xani demo juma te amoo ben gant manam manam retiré wul dem ci yëfare nga tudd ci mbaa nga dem ci ñeneen nga tok ci señ bobu wax te ko wax wasarul bay asalikum khairun lakum in kuntum tahlamun isaanu di lisrat mi yawmi fasaw ila sikrillah yalla lol la wax kon na ngeen xamni ni yéen ñi ma àndal de man ma ma ngi lay te ko alaxira koo ko xamni may sa jëwrin daal ba ji ma joté señ bi wupp do pri soñé demal nga jaamu ji yalla ba nopi defo yim nga jëm fa ah man de ci lol la nek koy top nag fum tek tankam tek ko fa bu ko du ngeen sëñ bi moom bu ko yàlla mayeeg wér ku ñëw ci waaju aju ba gis ko léegi rek ndeysaan suñ mbokki naar yi fi jóge dañuy def ay fan dañuy ñëw fii ci nasu duñ ma a gis ndax ñu fi mbooloo bari te xam naa la ñu soxla bu ñu damay daal di den ak man de fopp ab lim ni ko yiwil ma leen ñu dem léegi wax lu mu wax xam ne di nga jumaa ji moo tax nu kar la fi moo tax bii yoon ñëwuñu ci kaw ndax bu ñu ci kaw dañuy teel a tàggoo ak ñoom nu ñëw ci jumaa ji ñu dalal leen nuy di jënte sàppe yi ba sëcc sàppe si bato naka laa ni cëpp kenn ki jóg ni ma fa wax loxo ma ne waa jàpp nga ma fii moo fi rëbbi ma jàpp waa ginnaaw naar yee ko man asa donga yi nag nun bàyyi yenn yi xam nga loolu waa jox ne baleen njóoj njaaj lii mooy njóoj njaaj waaw yaakaar sëñ bi muy def lu nangam nga nekk ci àll ba xoolal xoolal xoolal suñu soxna seen yooyu ñu fa ñuy bàyyi ko kenn gën leen a bàyyi faale waaye daa am lu yàlla moom nañ ko fonk soxna si dama koy laaj mu ni ma jàpp naa ne jubaa ji ma julli si ne moom mii ndax fa ma nekkoon xañ na du ko du ko defee nii donte sax dëkk ba am na juma waaye bi mu duggee ci jubaa ji ba noppi dama ko ne boo dee seen kër damay def mu ni ma lu bees laa fa yóbbu fajar teel laay yow yeew suñu waa kër ndax daaw fa am na xamna naa bis bu ko defee bu fi jëkk bi dañ ma ni yow ga bo boo genn wax ak ñoom ba luma ci fekk baxna na fas naa yéene di yéene fajar ndax loolu loolu def tay dafa neex ku ko ñam l'islam do ko bayyi l'islam dafa neex ku ko ñam do ko bayyi kon nak yeen ñi ñu andal te bëgg leen dimbal lu nak lu alakhira wax na leen àjjuma ji passé téereb sëñ tuwala laa génn firi leen ko na ngeen farlu ci seen diiné te farlu ci seen talibé te farlu ci seen digënté ak seen bop moy ñett yoyu dugg nga ci léegi xaqiqa ak sariya loolu mooy li xam naa des na tuuti bu bëggee yëf yi dox bàyyi taala dañuy fal Seex Mbàkke noddukat ndax duutu tardé waa kay seet keneen ku mel ni moo ñu fexe ba def ko ci ci ñu topp ci ilimaan ci dégg ko fii ne fii ne ab tardekat bu ne ci mbooloo bi nan fexe wutal ko poste ci jumaa ci ndax ñëpp di teew loolu dina ci baax bu ñu déggee audio yi naan xam ne fal nañ leen bis ni ki tey waaw ndax ndax ñu ñëw juma fi ne loo loo loo nekk ca loola li nga bal yee ko gën lislaam ak ndéglu sëñ bi mooy li fi gis nga ànd su dee yàlla daa daa dogal te yàlla na ko yàlla dogal nu àndandoo bàyyi seex ba nii nu defoon sëñ maam bay nga wax def ko soxna biir nu ànd ci suñu biir ku jiitu ñëpp taxaw la nu ko rafetal dal na xel lool ca kanam yàllaa fa ne waaye ci ginnaaw am na lu man nun àndandoo ko yéen te fi ne léeg nga bokk ci mbooloo mi te ne ci biir dëkk bi sëñ bi te sëñ bi du la teg bët mukk ak man naqare loolu ndax bu noon guddi na mbaa naaj ne sëñ bi du xam nu muy def ndax doo man a ñàkk bañ a taxaw du mën a ñàkk ba a ñëw ci yow te ñëpp dañu yëg yow doxu léeg-léegi am ku ñëw fii ma ne ko boo dee neel sa boroom kër nay teew ci mbooloo mi wax naa ko indi fii ba tey xam naa iblis a bari doole mi leen féréwlu ba du ñëw ci jumaa ji du ñëw ci ndaje mi te wóor na bu ñu faatu woon ñun taalibi sëñ Asan mo boba ñun fuñu jëm wala mo fuñu jëm nan and dox jëm ci yalla sun borom tabaraka taala day neexalaay té lu mu mën doon dafa am heure bo xam ne koy tal ba nga man ko amna fuñu egg dootoo ko tal té dootoo ko man sey mataar wax nga dëgg walaay amna lo loo xam ne boo ko defee jàpp na dara ku la yegul sa dajé bi ak li ngeen ci daj sëñ bi soxna bint mi ni ngeen ko taxawoo aduna bi di ko wax bay cheikh ku ci bokku ku ne bëgg nga ko na ku nekk ñëw indi sa addi ngir jëm suñu borom nu ànd teerlente jàppalente maa ngi ciy woo ñëpp ci loolu. kon nag loolu rek laa doon defaraat doon ko dolli ci xidmatul xaadim nu góorgóorlu te àndandoo di di ubbi suñuy bunt di woo ñëpp nu ànd liggéeyal yàlla bis du ñàkk waaye dina ñëw de te yàlla nee na saret bi ngeen def bu ngeen demee bitim réew def ko seen diggante sama diggante yéen moo gën. moy jëfal yalla yobu alakhirah bala do dem alakhirah kërëng ngoog go xani bo defee jëm ci dañ la ci def bo deful jëm ci dañ la ci def def ci bala ñu la bala ñu la def dene liggéeyal yalla ci seen i ñaq ak seen jëm bala ñu faal loolu la am solo kon jaay ngeen jëf ci googu faal la yes moo di rek bis yi ngeen di wax bàyyi mor mi borom passif la nañ ko japp té nañ ko jappulé ku ko japp doxani ma dox dox doxinam motax nga japp ko té ko ko jappulé doxinam motax tax nañ ni bay mo mom ku fonku juma la imam mi xamna na do ko gis aljuma ji jot mom neexna naa laayil borom kenn gënu ko sore fu mu jóge ndax taxi lay jëm julli si delluwaat ci yitteem xew-xew yi seen diggante it kenn mënu ko ci. jàmbaar la uh-huh. waaye suñu diggante ak sëñ Tuubaa man fi ma jiite man kenn mënu ci bàyyi moom. wax léegi nag loolu ci kër loolu rek la ñuy wut am na ngërëmul way juróom yaay ma toog barki mi ma ko wax. am ngërëmu sëriñam maa ngi nii toog leen ko wax nii waaw suñu diggante suñu borom bàyyi taal yi muy jiite jumaa ci mbokki talib yi gërëm nañ ko waaw mbokki talib itam gërëm nañ ko bi loolu mooy jaamu yàlla de jaamu yàlla bu baax mooy loolu islam ak l'islam boo boolee liimaan muy sa diggante sa borom pratiquer l'islam bi ba noppi am instant sa diggante sa mbokki talib bi looy waxat loolu rek fi nekk kon nu ngi soññ ñëpp ñu dox doxin su bisba ko man ku nekk nu àndandoo nun nun ñun rek doy na noo xew fi mu nekk nun ñii fii ne ko xewle boo nu amee boo mul kenn sax doy na ndax mat nan mbooloo seen bisub keroog bi waa ngeen ko lu ba léegi ci ngoon rek am naa délégation bu fa jógee bi tamit si bëgg a jot ñëw di wax leneen ak bis yo ko jiitu na ngeen àndandoo mobilisé wu yéen ñëpp foofu seen i ñàq foofu seen i alal foofu seen i yow defar ko defar ko bis ba fa tabarakallah yàlla yàlla fay leen. nan doxee noonu na ku ne foofu sa loxo def ci yëf ni nga mënee xam nga yow laa a àndal kenn tegul kenn loo mënul defal li nga mën rek. xam nga imaana defe naa suñu xaarim aaya bi bi suñ borom di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam alasi ne tabaxu daara wal waa kay aaya boobu. nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafay wax ni jullit yi saxaaba yi duñ benn lu tax duñu benn mooy ñi jëkk a gëm laay ba mu mittee egg ci foofu seen loxo yi boobu amuñu ay turéel ata boobu daara di ko tabaxal këram ka ci móoli banam ya di ko ñooy móol móoli ci seen loxoy bopp di ko jël ci seen loxoy bopp di tibb seen seen ban seen loxoy bopp di di kole di tabax ay miir ñooñu mën noo bokk ak ñi xam ne ñoo xaar ba yi fi neex ba noppi ñoo ko ñëw te loolu sam am kon nag yéen ñi nga xam ni da ngeen taxaw ba taxawaay bii ngeen di doxee nii sëñ mën leen ba ku doxewul noonu nag donte yéen a bokk sëñ bi lu am solo la waaye baatu ruhamahum baynahum dañoo soppante seen biir ñoom sahaaba rasul alayhi rasul alayhi salatu wasalam su waree ba sa mbooloo ngay si batu soppante boobu baatu bëggante boobu yow mi leen jiite sa xel day dal ñoom ñi sa xel day dal ci ñoom kon nañ soppante te bëggante te wóolante te and ngir jëm yàlla foofu moo yëf yi waaw sëñ tuwaa bind na ko wàcc alxulubana ala tawadudi nañ boole suñu xol yi mu nekk benn buñ xëccoo buñ foñante buñ bañante nañuy dimbulente ba mujj ñëpp ñeeñu sax la wax attaane sar muslimin xaas yi nañ te foofu sun tànk kon buñ ci eggee rek na ko ñëpp waajal insha allah ba mu des ñi sori nga xam ne nekkuñu cees ñoom dañ leen di may xam waaye xam naa sax dañ fi ñëw dimanche kon alhamdulilah xam naa boobu booba waaye ne ñëpp doo waxtu wi ngeen di tudd doom fekk leen kat def naa ni ay na ngeen ko def diggante dix heures jëm noonu dinaa seet ba xam ñan laay délégué ci yoon boo jógee fii dégg nga ko heure boobu lay nekk ku yàkkamti lu yit dix heures ko mu dem na nga koy ni ko sëñ bi kon mën ngaa dem gaa yi ngi ñëw ndax ku la tax a def la nga def te gaa yi nga xaar ñëwul it bu ñëwee du mat la gaa yi mat danga nga wax bi waaw yow yow jàpp ko foofu rek xaaral ba waxtu woo jotee 10 heures ba 17 heures balaa nga seetee kilifa yi daañu teew bu ñëpp teewee am na li nga bëgg nga def li ngay def loo bokk bokkoon nit bu yàkkamtee rek nekkoon kon nan ñaanante boo amee lu mu jox mu jox la ko boo amee loo ko jox mu jox ko tey wékku mooy li fi nekk ndax waxtu woowu la bëgg ci kàttun yàlla ñëpp ñu ko mën daje sa kër buñ ca noppee nag fu jëm dog faa jëm loolu mooy ndigal li kere baa waxee nan ko def bi way jurum ñëwee ñaan daa wax ni man ñaanuma la ma waxoon laa wax ba nga waxagul laa xam la nga wax nga wax waaye bëggal la lu yomb ak bëggal la lu baax rek tax ñu nungul ko yaatal ko ba na si fii yàlla la yàlla defal ndam amin ci barke seigne touba ci lepp lo dougmal mu tambulé ci li bi jaay xaadim rasul alayhi salaatu wasalaam di len sante bu baax yeen ñepp nak waxon na ko seigne Matar mi kéré ci bés ba di ko la sante ñepp ñu xamni ñu ngi taxaway yu rafet yi ci dëjub soxla ci jall bi ñoom yaay fall ñewé di wax ni waruñu moo na tuddu la ni mako yeglé boy japp japp ma maa seigne Matar na la tuddu lo rek ka fi nek képp kuy jëf lu baax waxal ko lu baax baax na am na foofu suñu borom di wax ni ñëpp ñuy yef lu baax donte dañ koy feeñal mbaa ndi mbaa ndi ko wala ñu koy wala ñu koy nëbbu it ci suratu Baqara suñ borom nee na xam naa ko te ay du ay booba damaa xam suñu xaar aay bi nu mu tuddati sax xayran wa kay loolu la ay bi tuddi waaw in tubdoo su fekke da feeñ ba ñepp yëg aw tax fa wala ngeen nga nepp ko suñ borom ne d'accord na ci te yenn say sax nak jëf jëf bu jëf ba nopi feñal ko baax na de day day tax ki nga xamanteni da ko yor ba nopi naru ko wun manam wokk posam am na ñoo xamne ay ay kat lañu am ñoo xamne ku leen bayyi duñ ko def waa kay wa mi nga def mom jambar la moy affaire yi. social bi. bisa gi ci kanam. di bisa gi ci kanam yalla na yalla dimbali as ye fi neex naa bokk de ndax am njariñ amna njariñ de. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga. xam nga ngenté ak ngentew ak génn du ben de. ngenté ak ngeen teew ak génn teen du benn. ah. ngeen te soxna Paye borom da koy man def la mu def lépp nga xam mu ku ñu baax ndax mënal na ko. ngeen teew bokk yee daje ak mbokki taalibe yi génn teen nag da nga kenn dara. mbedd ba da ngay taxaw di séentu ba xam fu teen toll rek. boobu mooy génn teen mooy mooy mooy bokk. génn teen baaxut dëgg. dinañ jëf leen teg nit ñi balaa balaa balaa bis a jot gaa yi lu ma leen def hmm, maay caméra te gisuma kenn loolu bu mu la ci fekk ah ñoom soxna sa njaay ñoom dégg naa ñuy ñuy ñuy yooyu xewle sa loxo koo la jox déglu naa soxna ab sa njaay mu koy wax <laughs> waaw <laughs> dégg naa dégg ñu koy léeg-léeg booy doon daara ci daa daa leen diglu ñoo ko ndongo daara yee moom kenn ko daan booleeg yooyu ñuy def nag ñoom yooyu ñuy laal xewle sa loxo koo jox mu jox la koo joxul du la jox xewle sa loxo <laughs> temps yooyu ñoom laa bokkoon ñoom boobu ñoom laa bokkoon moom soxna ma dem sekk ah génn teen baaxul kon gars yi ngeen farlu ci bu baax a baax yàlla yàlla defal leen tawféex te defal leen sutura ma baaba amu leen morom bis bi passé yéen ñëpp taxawaay rafet yàlla xam na ko yàlla xam na ko bi ñu xasee yëg ni lii ci yëfi sëñ bi la moom jël nañ ko amee jël goo xam ni yéeme na ba lépp rafet yàlla na yàlla rafetal seen lépp dafa leen usnal xitaam barke borom Tuubaa Xaadim Rasuul jéggulu yàlla bu wér a wér a sëñ Saliou daan wax te ñaan ko ci xéewalam yi mosoon naa fee wax allahuma maxfiratuka aw saxu min suno bi nañ ci def yitte ba man ko allahuma maxfiratuka aw saxu min suno bi nag wa rahmatuka arjaa hindi min hamaliya Uh-huh. dafa am benn benn kenn ci saxaabi yi saxaabi yi ku dem bëtit ci boppam aay alxuraan wàcc ni ñi nga xam ni dañoo jaar ci lu leen trompé bañ def aw ñaawteef biñ ko defee ba noppi ñu tiit daw ñëw ci seen borom bëgg a tuubaat sorom be suñ borom neena bañu xalaatee sama diggante ñoom tiit rek bañoo toog naa leen wutal porte de sortie buñ jaar yent bi ko wax ni ko ndax man nga ñaan gi mu ferang kulaayo ni nga def moom rasulullah alayhi salatu wasalam waaj ñëw ba sës koy woowam nii sëñ jibi tooge mu ko jàngal maxfiratuka allahuma maxfiratuka awsahu min sunubi ورحمتك هندي من هملية لا إله إلا أنت منك وحدك اللهم مغفرتك أوسه من سنوبي ورحمتك أرجى هندي من هملي لا إله إلا أنت اللهم مغفرتك أوسه من سنوبي ورحمتك arja ya, hindi min hamaliya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin ñet yoon mën ko jogal dem yalla jégal dal allahu akbar sallallahu alaihi wasallam nañ ko mokal nañ ko mokal bu kenn xey fek simin bi ta jangoo ko ñet yoon chaque jour na ngeen fexé ba def ko na pé ci ñet yoy ba nopi nak doo ko jël astaxfirullah al-asiim bi ma waxoon allazi laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum wa atuubu ilayhi tawbata habdin saalimin bi ma jëkk wax noonu aw sax min sunub bi wa rahmatuka arjaa hindi min hamadiya laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina saalimin ñetti yoon rek boo julee soo ba noppi wax ko boo ko fàttee journée fexeel ba def ko ci benn benn barab waaye boo noppee jàngal istixfaar boobu ma la wax téeméeri yoon ci bis bi soo ko mën nga def ko juróom-ñaar fukk astaxfirullah al asim alasi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata habdin salimin la yamliku li nafsi nafhan wala daran wala mawtan wala hayatan wala nusura téeméer baax na soo mul jot yow mi may dégg ndax da nga nekk ci activité nekk bitim réew def ko juróom-ñaar fukki yoon soo noppee nga julli ci rasulullah julli goo man baax na waaye jamono yëpp maa ngi leen di wax allahuma salli ala sayidina muhammad alal mawsuufi bil juudi wal karami jël ci limub 489 489 ab séeru la de nga saxal ko rek simin bii nga xool fu yàlla yi def ak yow waxuma la jéggal la mbooleem say bakkaar yu jëkk yu mujj waxuma defar sa jëmm waaye say xéewal suñu borom garanté na dina ko defal ci bu wér 489 muy ñeenti téeméer juróom-ñett fukk juróom-ñeent defe naa boo bindee baatu Fatiha boo ko déchiffré moom la lay jox yaakaar naa ko faa gi defe naa juróom-ñett fukk lay doon boo ca boolee alif gi 81 la nga jël taage ak hayin nga 408 408 boo boolee 81 489 la lay jox bu ma juumul soxna ma rem démb ma ngi ci waxtaan ak sëñ xaadim mi waxtaan wu reuy seigne as na ko génne ci salatu fatiha la do waxtaan dem da ko junjoon fi ba waxé ni xamna sir bi kay yu bare bare rew mi bitim rew ñëpp ñaan mako mo taxon ma dugg ci tuti waye batu il fatihi lima ukhliha so genné lam ga ak alif ga il gi ba des fatihi gi mooy 489 fata dama la mos wax ni soxla bu waay am ci kaw suuf nga toog benn barab ginnaaw takusan jëm timis jàng lim boobu ci salatu fatiha boo ko ñaanee loo ñaan yàlla mu defal la ko dëgg la 400 baatu 489 moo tax salaat bii ma leen wax ne ngeen ko def ci simin bi maanaam lim boobu laa wax fi liggéey leen ko 489 gannaaw boo dem boo boo jeexale ci sox allahumma maxfiratuka war soxmin sunubi wa rahmatuka arjahini min xamalee ñetti yoon rek saa yoo julli suba baax na dama sa yoon waaye foo ko mënee ci surne bi na nga def astaghfirullah al-azim laa ilaaha illaa huwa hayyul qayyuum wa atuubu ilayhi soixante-dix fois soo noppee jàngal salaatu allahumma salli ala sayyidina Muhammad alal mawsuuf bil juudi wal karam bi nga def ko ci 489 simin bii ku man chaque jour nga def ko da nga dajeeg loo xam ne yow yaa ko yëgal sa bopp so amul jot semaine bi yëpp fexal ba di liggéey ko ci waaye yeen ñi di goor yi ñeen ñi yeen mom digal la ci yeen ñi nekk ci liggéey bu xat nak nañ fexal ba ci semaine bi nañ ko ci def ñetti yoon kado bu reey la leen may kado bu reey la leen may waaye waaye ma ma ma ngi leen di yalwaan ku nopi na ma ñaanal ndax sama doyee digi rañ mané nañ may ñaanal doyee digi bind ci man doyee digi waaw <laughs> di wax yalla sa jam bi dimbali ko rek ndew yon ñep den den den da wax lolu seen lam yi kuy tudd lam ñam day am barke te du ngeen ñaanee yalla jëm sama ko yalla dimbali ma kon ma ngi ngeen ngeen di ma fasale, ma len di fasaale ni fasalante yalla defal nu tawfiq bi jaay rasul sallallahu alaihi wasallam kon lo rek la leen bëggoon jot li tay ji na ngeen ko fonk sekkar nañ tudd yalla nañ tudd yalla seigne touba neena képp ku nara tay wax bo boo yeewoo degam gëm nga yalla gëm rasulullah yalla na yalla xertal gi tuddu turum bi hadaka lahu bi yumni la ilaha illallah ah loolu la wax bi jahi ramadan ahsami nu ko waxe do non la waxe bi yumni ramadan ahsami wa suma bi yumni ramadan ahsami loolu la ñaan ma nga ñaan yalla ci barke weeru ko wu tedd bi yow mi nga xam na da nga na wax hadaka lahu bi yumni la ilaha illallah dañoo xam ne jël ñoom mosu ñoo selaw seen benn temps mosul perte ginnaaw ñun nag dama daan dégg sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla doon leeram mais ginnaaw mën noo mën noo ñàkk a lekk ci yenn yi di wax yenn yi nañuy julli ci yonent bi di ko effacé sëñ Cheikh ne ne ginnaaw salaatu ala nabi day effacé bàkkaar te ñun fu mu toll nag di di def ay yëf rek bu noppeetee nan nan dugg ci kër Rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam ku dégg jamono la waaye gars yi li ñu wax ci seen portable yi par jour suñ ci boolewul salaatu musiba am kot bu ne lañuy dañuy dijjanti kon nag julli ci rasulaay baax na lool sëñ sooy bu wax na ci téereem ni bi ñu seetee yiw yi yàlla yi fa mu nekk li gën a gaaw ci jotandi ci nit moo julli yoon bu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax sëñ Tuubaa bari ay salawaat diwaanu salawaat mafaatihul bisri xidmatul ma mu xaddimatul xidma yurul jeex waaw salaatu sitta merci set kon di leen bari di julli ci rasul ay salaatu salaam te julli ci yonent bi tëdd mën ngaa def di ko def taxaw di ko def toog di ko def dawal sa oto di ko def boo waxtaan ak kenn ba noppi boo waxee ba balaa waajee wax nga dugal ci benn salaat doo ko waxaat sax mën naa nekk foo ko tudde mënu ko rasul alayhi salaatu salaam te ku na gën a bari loo koy tudd yaa gën ki néew lu koy tudd kon na ngeen ko bari lool bu kenn selaw di tudd yàlla tey julli ci rasulullah waaye waaye secret bi ma jox na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax moom fan yi am na lu ma ci yëg lu tax ma wax leen ko yàlla na yàlla defal leen tawfiq ni ba barke barke waxaat rasul allahumma maghfiratuka awsahu min sunubi wa rahmatuka arjahili min hamaliya لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ربنا إننا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بجاه رسول الله الله صلى عليه وسلم آمين يا رب العالمين نهر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين borom na dullahi diine jaa